ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ji suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi tey dañuy ñëw ci coowal li ñuy dippee force spéciale maanaam nee nañ dafa am benn groupe ñaawteef bu ñu dañoo dajaloo formé wu comme benn armée ngir taal Sénégal bam ñu ci jàpp depuis manifestation yu vendredi 17 juin 2022 depuis lors malgré yenn interpellation yi ñun dañu décidé woon jël ci distance pour mën ci am gis-gis bu gën a yaatu d'abord li ñu intéressé woon mooy fan la coow li jugee buñ ci noppee ñu trouvé benn chronologie maanaam ay succession des faits jëf ak kàddu yu toppante depuis daaw 2021 jeexee tey ci mbiru force spéciale bi nga xam ni dañ ko créé toute pièce daan ci ñëw détail par détail bu ngeen gisee nag journal l'observateur ak photo Youssou Ndour bi nga xam ni mooy seen patron ci miniature vidéo bi mooy depuis ba ñu tëggee complot bi ñoom ñoo nekk di le relais information dara ci dëgg pour lëndëmal xelu accès à la bonne information mënuñu jot ci xibaar bu baax bu leen le même journal de l'observateur ñoo nekkoon di jouer le boulot ci dossier Imam daw gannaaw bu Macky Sall financement ngir terrorisme ñu ku terroriste Sénégal ñu dem jàpp Imam Ndao montel ko dossier chaque jour même l'observateur bii mooy xëy di xamba taal bi ak ay titres yu garaaw a garaaw fu ñu teg foto Imam Ndao toftal ci baatu jihadiste dem ba ni imam bi dañu ko tëj trente prison fan la dossier bi mujj dañoo xëy ne imam bi defoo dara bàyyi ko mu ñibbi këram ba tey journal observateur baaluwu ko àq baaluwu ñu àq itam sénégalais yi ñu bàkkaarloo donc l'observateur c'est un média mensonge des manipulateurs qui ont pour leur propre intérêt n'ont pour participer à pour du complot étatique avec un articles tendancieux Lolo la ñu du di l'affaire des forces spéciales qui ont inventé toute pièce ci chronologie dossier ces événements étape par étape. ces actes de provocation sans précédent et sans commune mesure ont provoqué avec le soutien de forces occultes identifiées. Le danger vient de ces ennemis du Sénégal qui ne veulent pas de ce modèle démocratique et qui veulent aujourd'hui l'anéantir. Et eh bien, les ennemis du Sénégal, vous parlez des partisans d'Ousmane Sonko S'il vous plaît, non, je parle de toutes ces forces extérieures à ne pas se laisser manipuler ni infiltrer par des intérêts encaboulés, nationaux comme internationaux. CFEX e ñu ñëwaat surtout ci période B. daaw au mois de mars 2021 gannaaw événement yi fi amoon la Macky Sall tàmbali nourrir un projet pour gëmloo nit ñi gëna di manifester du ñay citoyen yi am leen métti dong yam ci mais ay mbootaayu defkatu ñaw la lañu ñu yabal ngir ñu taal dëkk bi Antoine Diome moo njëkkoon genn nay force occulte lañu jàpp leen bu baax terme ñu tàmbali woon utiliser depuis daw 2021

muy ay expression ñu waxtaanee seen biir pour waajal sénégalais ci benn danger imaginaire bo xam ñom ñoko créer ko ba cat. ñu tek ci ñetti weer précisément juin 2021 Macky Sall santaane benn projet de loi ànd ceeg kenn ci ay conseillers préférés muy Tony Blair ngir lépp luy manifestation ci Sénégal résistance ak bañ nooteel ñu mën ko assimiler lënkale ko ak walum terrorisme loi bi dem assemblée nationale. Cheikh Tidiane Gadio l'un des plus grands traîtres ndax biru force spéciale bi ngeen di dégg déppi fan yi yëpp te lépp day sos tuuma gor kenn ki ci jàpp muy François Mancabou liggéey na Cheikh Tidiane gaajo ba am ak moom problème gannaaw problème yooyu noonu lañ ko jàpp barki démb tuumaal ko terrorisme daañu ñëw ci histoire boobu noonu banditisme dëgg moo ci am moom Cheikh Tidiane Gadio taxawoon daaw assemblée nationale utiliser même terme utiliser mu ci ay sos dem yi nañ sax ngir les réseaux dormants sont dans ce pays on a alerté de mille et une manières les gens ne nous écoutent pas le terrorisme n'est pas à la porte du Sénégal ils ont déjà commencé leur action en direction de notre pays. Soumaïla Sissé, que Dieu ait pitié de son âme, m'a dit personnellement que parmi les jeunes qui le gardaient, il entendait des jeunes parler Wolof et Poula. Il les a interpellés, c'était des Sénégalais. Le chef de la police de Gao, police djihadiste islamiste, c'était un Sénégalais. Deux jeunes Sénégalais en Libye ont déclaré que ils sont en train de se préparer. Quand ils vont arriver au Sénégal, première mission, c'est d'aller détruire le mausolée de l'imam Moulay et le mausolée de Cheikh Hamadou Bamba. depuis Daou, nous un débat pour dans l'imaginaire ñu tëgg loi bi ba teg toog nag di xaar waxtu wi gën pour jouer scénario bi. vendredi 17 juin 2022 bi ñu génn bésu manifestation Yewwi Askan Wi ak Sénégal le journal corrompu et faiseur de sale boulot muy l'observateur xëy bind ne Dakar mi ngi dëgmal yoon wu lëndëm bu kenn mënta natt te boobu dara xewgul coow jibul baltakul vendredi li am daal di am

manifestation bi dafa am leneen lu ci làkku les waxul journal observateur mooy wax fekk boobu noonu ñoo ngi préparé ci complot terrorisme ak rébellion biñ togg ba noppi war ko nag yàq bésu lëndi ñu ñëw nay arme de combat lañ saisir jàpp leen ay arme marine benn force spéciale moo làkku ci ginnaaw loolee ñoo xam ne dañoo noppi woon ngir taal benn centrale électrique bu Senelec attaqué société française ak ay këru autorité ñu ne jàpp nañ ci fukki doomi aadama yoo xam ni boo moywul ci kaso bi la ñuy deeyee léegi dañuy taxaw ci baatu force spéciale mooy lan lu muy ci définition bu officielle force spéciale mooy ab kuréelu militaire ñoo xam ne armée lañ leen tàggatee ba noppi ci anam gu bokkul ak yeneen militaires yi seen formation moo gën a métti ba noppi jàngal leen maanaam ñu am xam-xam la ñuy doon pour ñuy mën ay mission moo xam ci réew ku dox ñaari réew mbaa ñaari mbootaay wala ci ay jàmmarloo yoo xam ni ku mën sa morom duma la moo xam ci bépp anam léegi nit yu mel nii la journal l'observateur ne jàpp nañ ci fukki doomi aadama bésu vendredi 17 juin demaat ba ci biir ne fukk ak benn lañ lu tax ñu yokk ci benn beneen kaala dañ ci ñëw c'était mûrement réfléchi pour garaawul dossier bi. dañuy leeral d'abord lan la force spéciale fiji ci Sénégal en 2022. mille vingt deux ay jeunes lañ ni xamante nii ñii ay activiste lañ ñii Pastef lañu bokk xamante seen biir daje woon plage BCEAO pour waxtaan entre copains. bés boobu kenn ci ñoom sax mi ngi àndoon ak doomam bu ndaw boo xam ne amagul juróomi déjà ci deggin xel mënul nangu ngay préparer lu mën dal taal réew bàyyi bërëb yépp dem ba ci place publique rawatina plage ci période tangay nga xamni ñepp fay dajé ngeen fay waxtané lu tar réew li xel mënu ko nangu ni lañu leen jappé ndax lan Ousmane Sonko lañu àndal yu leen di topé organisation et participation à projet d'atteinte à la sûreté de l'État comme que nak fekkun ci ñom dara du

di gas di gas man oto mag naan sama instinct ma ne man ñii ba bàyyi ñuy gas mën a gisul loo xam ne man moo ko fi dencoon sax jin la ci laa commencé wax nag na leen xëy ñun sàccuñu toxuñu fenuñu jaayuñu lu bon defuñu lu bon ay patrouille lañ nag Ousmane Sonko la ñu àndal mooy suñu leader politique waaw bu ñu naree jàpp duñu yóbbu fii loolu rek la mën a jàppee ànd ak Ousmane Sonko te ànd ak Ousmane Sonko nag xaw ma ne kañ la ko constitution bi jàppee comme crime ku ko xam tamit nga wax ma. te fan ngay xamee seen i caaxaan. fan ngay xamee ni gars yi sérieux wuñu yow nga tudd lu doy ni force spéciale ñoo xam ne ay militaire armé la ñu doon am kàttan mën a xeex fukki force spéciale xajuñ ci cent policiers yu yor ay lacrymogène ñi xam naka la ñuy former force spéciale yi duñu weddi léegi nga ni jàpp nañ doomi aadama yu mel noonu amoo loo fekk ci ñoom lu dul ay cocktail molotov bu tey bu ñu defee sens ak huile à di ko sànni pour défendre. maanaam ñoom dañuy tëgg seen scénario ba noppi mais ànd ci cuune ak manque de professionnalisme boo xam ni même xale bu ndaw dafay xam ni lii ay caaxaan la. donc bañ demee ba xam ne ñii ñu jàppee plage BCEAO ak ay avocats yu baax yoon daf leen di bàyyi te bu boobaa defar la pour nguur gi ndax dem nañ ba naan saisir nañ ay arme de combat te ba tey gisuñu arme de combat ci lañ dem jàpp ku ñu naan François bu ne mooy onzième membre force spéciale bi ne waa ji fekk nañ sax ci moom benn arme xam nga lii boo ñëwee rek def ko sa journal mettre ko à la une te dugg ci en détail gars daal di koy revue de senegale bi toog di déglu ci rajo mbaa ci teleem xelam dafay commencé tey ndax baatu fekk nañ ci diw arme daf leen di tiital waaye li journal l'observateur waxul pour wal leen ne ay manipulateurs yu mag a mag lañ. suis François Mankabou bi ñu bëgg présenter comme cerveau force spéciale garde du corps la suis le garde du moy liggéeyam. suis na garde du corps Cheikh Gadio bi wax vidéo na états ba Cheikh di garde ci 2017 ci États-Unis FBI jàppee ci corruption. bi Macky Sall Cheikh corps, Gadio suis mu ci Sénégal transhumé. doon suqam di ko tarbiyu parce que Macky Sall genre yi lay wër pour mën di leen defloo ay ñaaw ñaawteef jëmi jamono. gannaaw gi Cheikh Tidiane gaajo am problème ak garde du corps bii di François Mancabou ba ñu dem ci yoon ba yoon daan Cheikh Tidiane Gadio teg ci alamaan ko gaajo lànk ne du ko fàyyi suñu dëkk yi nag yàlla dafa def ni boo fi jotee autorité mbaa ko bokk ci nguur d'habitude benn kàddu la lay wax mooy naa la won na lak naka la wala sax naa la yar fu mu dal bu yaboo nga waajal sa bopp te xam ni complot dafay tegu sa kaw te daañ la tëj parce que newuñ ci réew. imagine leen même Cheikh Tidiane Gadio mi taxawoon daaw en juin deux mille di def apologie du terrorisme te ku ko woowoon na ko fu terroriste yi nekk mënula ko wax. un an après juin deux mille vingt deux pile ñu jàpp ancien du corps boo xam ne ñoom ñaar dañoo am jafe-jafe bu yàgg a yàgg. tuumaal ko ne waa ji dafa bokk ci benn force spéciale di ko tuumaal warum terrorisme bi ñu dem di ko jàpp waa ji arme bi muy liggéey lañu ñu njëkk lijjanti kan moo leen xibaar ne bu ngeen demee ci këram di ngeen fa fekk arme loolu indice la di leeralaat foofu ne François Mancabou bi ñu koy jàpp këram lañ ko fekk yóbbu ko ci kanamu soxnaam manifesté wul bokkul ci parti politique arme bi ñuy wax ni fekk nañ ko ci moom dafa am autorisation. parce que métier garde du corps la autorisation de port d'armes ba nek ni ngeen sen muy ben pistolet water P22 arme yi du sax pour guerre pour protection la ko ne ci ñun mëno ko am biñ ko jappé amul luñ ko topé duñ ko door ba jamono ji mi ngi ci digënté du ndak dé parce que suñu réew yi habitude lañuy torturer doomi adama ngir bu sonné wax li gaay bëgg dégg tit nañ ci ay doomi adama yu bari bari dóor leen a dóor ba ñuy bëgg dee ñu wax li ñu bëggul wax donc banditisme bi moo nekk di xew Sénégal actuellement fii lañ ci yemagum juste pour wal leen naka la yenn médias yi di fabriquer le mensonge fent ay nar di ko xamb di ko garaawal ba mu far ndiru dëgg ci nopp ñu comprendre la manipulation de masse. kon ndax solo bi tey loolu woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa jëf.